الحمد والشكر لمن كل بيسارا لور دون دون سخ تند سرسارا لو سنائي ورد من بلا سخة مصادر من بني دايمان انصارا لله كل لدى أبار مكرمة لله لله لله لله كلنا أبار مكرمة قد سألته في أجم من سارا إن يسر إلى سلسلة خسدوا إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سرسار قد خسدوا سرسار قد خسدوا سرسار قد خشداء خشداء سرسار خد خشداء إن الذين سرسار خد خشداء شرتي فارخو شرتي فارخو فارخو نارني أبصارا mbokk yi jaa ngeen jëf ci topp ngeen ñu topp ci suba ak léegi ni nu xëy woon ci fii Serigne Touba nekk ci kër gi ci Sarsara jaar ci jàkka ji fi mu daan jullee ak mag ñi jaar ci barab bi ko Aliou Sow fekkoon ñu ngi barab yi nga xam ne nag ñenn ci kàngam yi ko daan fekk si fi ngir xenc si jéegoy lislaam waaye di xenc si nag bëgg Seexul Xaddim tax ñu daan dox di ko fekk Sarsara dégg ngeen ñu leen ba tàyyi ne am na ñooñu dañoo réer ci yoon loxo rek wàcc ku mel ne Serigne Màkk mu ngeen dégg am na ñeneen a ñeneen waaye nag lii lenn la ci ay barab kilifa yoo xam ne fii lañ fekk seen Serigne Touba benn ñu ñëw ba si wàcc wala ñu toog fi ak moom ba wàcc jot ñu wàcc sëriñ bi taxaw leen denc leen fii wala mu joxe ndigal ñu denc leen fii bi ñu dikkee ñu fekk suñu sëriñ sëriñ Modou Mamoun moom Cheikh Mor Fadal Mbacke ah, a taatan ci rek ginnaaw borom barab yi ñaanal leen ba noppi ñaan seen barke eh, sàkku it kaddu yoo xam ne kaddu yi ndolleen la ci sëriñ Mouhamadou Mamoun borom tool nag doo ko ne wet gi ngay commencé da nga ko bàyyi ak mbéyef gi rek fu mu commencé nga xam ne wat googu la kon sëriñ bisimilah wa rahmatullahi taala ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tas nañu ci ay barkeem di sant Cheikh Mahamadul Fadal mi mi ma booleeg Sëriñ Tuubaa ñaan yàlla fayal na ko te ci ay barkeem di nuyu mbokk di ñu seetaan ak ñu dégg ñëpp di ñaanal Cheikh Mahamadul ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ci sago te nu fekkee ko ànd ko moom noonu lañ koy ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal taalibe yëpp di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal waa Sénégal a ak waa Mauritanie euh, di sant yàlla bu baax a nag ci jataay bi fii nga xam ne barab bu ziyaara la barab bu fàttaliku la xam naa kaddu yi mën naa bañ a gudd sax ndax moom ku fi ñëw sa yaram dana daw ni mu méttee ak ni mu doyee waar boo fàttali ko lu ëpp téeméer at ci gannaaw nga xam doyee na waar lool te ki fi ñëw ci saahir sagom indiwu ko fi donte baatin ba leneen kon booba nga xam ne moom ci boppam xam gum xam naar yi xam gum xam seen mentalité mhm. taxoon na ba dafay daan tànn ñi fi ñëw xam ngeen histoire boobu baax a baax ma ah, Modou Lo Dagana nga xam ne euh, moo nekkoon Dagana mhm. nga xam ne di di tànn ñi ñëw sëñ sëñ bi jox ko ay critères yoo xam ne day am noo mel door jàll si mhm. am ñoo xam ne dañuy ñëw mu bàyyi leen ñu jàll am ñoo xam ne mu téye seen i addiye duñ jàll am ñoo xam ne dañuy ñëw mu delloo leen seen i addiye sax am na fa loolu lépp am na ci mbooloo nga xam ne kon lu waaw nga xam ne tànn la bu dee waar. Mm-hmm. damay wax ne sëriñ bi booy jàngat eh, ñëw gi fii ak ñëw gi Gabon ak jëm gi Thiéyène mm-hmm. day mel ni tubaab bi dañu ko bëggoon a faagaagal. Mm-hmm. bëgg dañ ko faagaagal jëmm ji. faagaagal physique li ñuy wax liquidation physique. loolu mooy Gabon. dañ ko yóbbu ci barab bu metti bu bu humide bu bari ay jaana ki jiite ki lu ne. juróom-ñetti at daanaka tuuti def ko fa lu ne. boobu jëmm ji lañ bëggoon a faagaagal. waaw nañ lu ne mënuñ ci dara. waaw xam nga jéem mënta weesu euh, fetal. Mm-hmm. mënta weesu dugal ci fuur. Mm-hmm. mënta weesu suul. Mm-hmm. mënta weesu takk yu di sànni ci géej. loolu moom faagaagal mënu ko weesu bu doon nit du dellu si. waaw bu doon nit dellu si waaye nag dokk mi doonee li mu doon. waaw bañ échecgee ca loola nga xam ne ñoo wax ne Serigne Touba ni mu ko tënkalee maam Thierno bi mu ñibbisee. da ko ne Ibrahima de war ngeen a yàlla. fii ñu demoon te ñëw de noon bi jéem na lu na oh. kenn du sa sa sëgg kon nag defe naa ko fa dem ba dem montagne sainte ba gis jumaa ji ñu fa defal Sëñ Tuubaa mhm. xam ne benn murid dafa dem sëgg kon bañ échecgee ci liquidation physique bi nag lañ ne nag nañ ko liquider moralement li ma tuddee liquidation morale mooy gannaaw nit mu seey mhm. ndax naar dañoo xeeb nit ku ñuul xeebit googu tubaab xam nañ ko mhm. ñu kon nañ ko ndax bu ñëwee ay ay naar lañ mooy kon mooy xadimu seen maam ñu ñuul lañ mooy ñu weex lañ moom mooy ko ñuul mhm. ay surafa lañ moom mooy ko ñuul donte moom itam la waaye daaw ko doxee daaw ko waxee mhm. waaye ñu ne kon nañ ko fi indi ngir mu seey far mu ñëw gis ngeen li fi xew waaw njobbaxantalu li fi xew lépp nag mooy ma axuuz nga xam ne fii ci barab bi la ko jotee mhm. jot goo xam ne duy gént duy nettali duy jeneer ak gis jëxëran la ko waxee waaw kon kooka te gàddi yoon fii dañoo mujj dem bay fàq di jébbaloo dem ba naar yi xam ne kat li xam ne li bëggoon fii du sotti ndax li ni ko bëggoon a loo bëgg koo bëgg koo eh, seeyloo bëgg koo bëgg koo loo solo ndax kanam surafaay yi nag ay wilaay yi nekk ñooñu déwlu di ko di ko topp di lu ci moom di fàq di ko topp kon loolu fii day état boo xam ne eh, Gabon métti na loolu ay ba sit fi mu gën a métti ci fi mu nekk ndax li li fi daje woon ci boroomi xam-xam boroomi wilaaya ak xeebeelu naar ki nit ku ñuul yéen yéen xam ko ak caay-caayug tubaab moo tax dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa dafa mucc ci yoo xam ne kenn fekk ko ca mm-hmm. radiyallaahu sëriñ Touba moo mujj ci xëbal bi ci tubaab bi hmm. Serigne Touba moo mujj ci jey bi ci Kajoor hmm. Serigne Touba rek mujj ci diingat bi ci gànnaar hmm. gànnaar ku ñu mës a diingat ku ne rek nërmeel nañ la ah, dafa yàgg mu ñëw nag gàdd yi di wëlbatiku di jébbalu di ko topp si di ko fekki ba li fi lépp fekk fi te defe naa ne téeméer at seeroon ay nit dinañ jóge Sénégal ak fu ne di xeng si jeexitam yooyu da nga xam ne li nekk yàlla rek mooy lu am solo te ñu ko waroon ay kàngam lañ yoo xam du ñun ay como mm-hmm. maa ngi wax sànq mbokk yi leen ñëw ne leen la gën a yéeme mooy mu xëy ni leen yonent bi wa sallam sanama nangam mm-hmm. te ñu gëm ko xam nga wax rek yomb na waaye ñu gëm koy mbir ñu ngay waxal nag duñuy duñuy jaahil duñuy gone duñuy boroomi wilaay lañ juddu lañ boroomi sañ-sañ lañ te dañ dañ xool ba nga jom ba nga jommal leen mm-hmm. ngeen baal ma ci waxin bi ñu fekk si la te ñu ci bari bi ñëw dañu doon diingat si te dañoo fees dell booba am na ñoo xam ne dafa nañu boroomi jamono lañ hmm. waaye bu ñëwee gis loo xam ne xam ne ndeke ndeke ndeke jo bu sëñ bi maanaam jég bu sëñ bi àgg boobu jóguñu sax ñoom ñu wëlbatiku nag wër ko mu leen di wax ne yonent bi nee na ma nangam ñu gëm ko loolooy mbir ndax yonent bi nee na ma ku ne mën nga ko wax waaye nag ndax dinañ liggéey moom de duñ liggéey foofu la mbir mi nekk kon bu ko defee rek muy ziyaara boo xam ne lu am solo la eh, lu bari xew fi natt bu nañu def ko ko testé bu nañu def ko ko diiŋat bu nañu def ko waaye mu jombal leen ci xam-xam ci wilaaye ci juddu ci jub ci jàmm yàlla ba ci attentat naaj boobu ñu doon sax fi la woon mhm. kooku nga xam ne dañu ko formé woon ngir mu ñëw ngir mu attentat ci jëmm sëñ bi nekk sëñ bi yoon na ko ca Gabon bi mu ñëwee daal di di rootal sëñ bi di bale di di di di di tàngal di muritu ndekete yooyu dafa bëgg a jekku bi rek waajal na ko bu yàgg bàyyi ba benn bi sëñ bi di julli mhm. mu yoot ko ba xam ne boo xam ñu nekk ci mbooloo mi yëpp ña ngi dalul diggante yu tuuti ñu daan daloo ko si néew sëñ bi rek nekk di julli ci xaymaam mhm. mu jógee fa la jaasam bi doy waar waaye ba mu riiree ba wut ko rek daanu gam daanu rek mooy yee sañ mi nañ mu wol sëñ Mad Lamine Diop Mouhamad nañ ko wol mu ne ko indil gaal sàngam mu indi ko mu ubbil mu gis mu gis sëñ bi bindoon na danaa jóge fii delluwaat ci réew ma noonu noonu bi dana ma yóbbu gànnaar danañ am kuñ kuñ jël ku ñuy wax naaj yi dañ koy bëgg mu faat sama bakkan dana ko jéem waaye suñu borom du ko dogal du ko nangu kon kon lu ne wane na ko fi bokk na ci li mu fi wane mooy li liñ ne eh, li sëñ bi wax ne murid yëpp bu ñu faatandoo woon ñu leen tabaloo ci armeel moo leen di nangu test bu ko naar yi defal fii ci gànnaar mhm. bi ñu ko déggee dañ ko ne waaw loolu yaa ko wax nu ñu mën a demee mhm. léegi daal mën nañ la defal loo xam ne boo ko boo ko defee ñoo xam ne li nga wax mën naa nekk mhm. mooy lu mu doon mooy leen gàdd nga bu cëkk ñoo xam ne li nga wax mën naa nekk mooy leen saa ko bëggee rek ñu daal dem waxtaan seen biir ba ne am na ñu ne sax waxtu takkusaan la xam nga fii dafa tàng mhm. ñu dañu ragal jant bi waxtu takkusaan la mhm. gàdd yi jege woon yëpp seen biir bis takkusaan bis sangam Cheikh Ahmadou mi neen danoon jiite kon yéen boobaa na ngeen waajal te waajal tabala bu ngeen liqaamee na taxaw ku mu jiite rek boo sëlmalee na nga hmm? yu baree bari waaj di ko déglu bañ demee ba liqaam ñëpp gis mu taxaw seen kanam bañ noppee ñu tëgganoo nga xam tëgganoo tabala yi moo ko xamal ni ñëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne moom <laughs> yoo xam yoo xam yoo <laughs> xam ne sant yàlla oh. oh. xam ne nag soññee boo xam ne mooy barab bu ñu war a dekkal la mm-hmm. ñëpp ci war a jàpp <laughs> oh. waaw ndax ndamul lislaam la mm-hmm. ndamul diine la ndax fi liggéey bi toll waroon na ko weesu nag mm-hmm. loolu moom sama bopp laa ci soññ soññ ci mbokk yëpp nag ju jumaa ji war naa gën a taxaw daara ji war na gën a taxaw jàng maanaam dalukaay bi war na gën a taxaw ndax Sëñ Tuubaa kat mérituwul lii te bañ fi tàmbali yëngu na kon nañ seetaat doxalin yi jaajuwaat ta xam ne kat Serigne Mountakha mii fi nekk kat ab soñaat la ci jëmoom rek te li mu wax barki démb ci korte gi nañ nañ nañ nañ sagal sëñ bi lislaam nañuy jooyal lislaam xam nga muy baat yu am solo nañuy sagalal sëñ bi lislaam nañ amuk taalibe te sëñ bi fàggu na lépp. xam naa loolu <laughs> waaw naa loolu jaaj jégg baax a baax ci taxawaay boobu mu taxaw wax ne. wax dëgg yàlla jumaa ji war ko rek ñu ci am yaakaar waaye fi ma ci bëgg a wax ne mooy soxna maam Issa Mbàkke mm. kenn koo xam ne moom it wax dëgg yàlla ay ba léegi mi ngi ci ñëw taxaw ci liggéey bi taxawaay ba mu solo te ñu ngi bari lu ma dégg sama jëriñ Sëñ Blaat Jéy di nettali ne Serigne nee na su ma amoon dara lu may bett ci Serigne Touba ma ne soxna maam Issa Mbacké bett na ma ndax taxawaayam ci biir ndax jàpp na jigéen warul mën a taxawee nii mm. parce que fi mu def nag def mboolem fédération ahlu café yi mbooloo mu takko takko buy ñëw Sarsara euh, day dajale xaalis bu baree bari ànd ak mbooloo bu dikkee bu siyaaree ba noppi jël liggéey boobu def ko ci euh, jàkk ji kon ñu bëggoon xam taxawaayu soxna si loo ci soxna si moom xam nañ ko bu yàgg suñu jigéen la suñu xarit la ku baax la borom positif la loolu moom ñëpp mën nañ ko seede waaye nag loolu la war bett kenn ko xam fi mu surtout euh, sëñ Massamba dégg naa ne si Moussa Fatick xar yi waaw ah, teewul nag dañ ci sant yàlla bu baax te di ko bëgg a wane modèle ndax eh, mënoon naa yittewoo yeneen bu ko neexoon fi mu toll ci attaque fi mu nekk mu yittewoo kër yittewoo or yittewoo oto yittewoo yeneen te kon tam sañ na ko ndax xéewal gu maamu indi la waaye nag bi bi mu yittewoo lii nag dañ ciy sant bu baax te di te di ko wane modèle wane soxna yëpp war nañ cee jàng góor ñi war nañ cee jàng ndax Serigne Touba bu jàngalee wala bu joxe ndigal amul góor ak jigéen uhuh. nit la koy wax rek li ngeen si Moussa Saliou ci waxtaan wu mag boobu doon wax mu ne ñun xamewuñ góor ak jigéen mag ak ndaw ak troisième âge ak cinquième ñun nit lañ xam nit mhm. waaw te nit mooy ku da nga jëm suuf waaw kon soxna si li mu taxawaay mm. taxawaay la boo xam ne bu buñ mën a wane la taxawaay modèle la taxawaay bu ñuy la mm. te di ko ñaan yàlla far ko cat ak làmmiñ ba mu bëgg liggéeyal maam lépp mu liggéey ko te ñu koy jàppale ñu nekk ci gannaawam ñëpp tam yàlla jàppale waaw ndax def naa ne ko am maam ngi toll ne soxna Isa mhm. soxna Fatou Isa mhm. am maam ngi toll ne maam Jaara mhm. dara warul laa yéem boo leen xoolee ko modèle rek da xam ne loo defagul rek dafa dafa dafa ñëwagul waaye war war nga koo weesu te moyen yëpp nag léegi la ëpp kon nga xam lay amatul loolu suñu mën taxawoon sëñ bi fàggu na lépp kon nañuy jooyal lislaam nañuy sagal sëñ bi ci lislaam nañ am taalibe nañ jub te sëñ bi fàggu na lépp xam nga comme dégagé na objectif bi dégagé na li ñu war a def dégagé na yi am na Mm-hmm. kon léegi lay amatut waaw <laughs> kon nag nañ daal dégg ci yoon te góorgóorlu rek <laughs> jërëjëf yàlla yàlla faj aaju yëpp ñuy ndokkeel ñëpp na ci lii ah. ci ji ak déplacement bi ak coono bi ñu coono bi ñu supporté ba ñëw fii mm-hmm. leen ci ndokkeel li ci ndokkeel suñu bopp di ñaan yàlla defal ñu ko lépp ngërëmul sëriñ bi waaw ndax ngërëmul sëriñ bi kenn moo gën lu dul moom ndax sëriñ Fallou Mbacké mbaax ma kat ci lay tëji mm-hmm. am na ñetti kilifa ñu doon tudd ñu ko ñuy laaj ba xam seen maqaama du ma leen tudd nag ndax war ma eh, mu ne cell ci fekk daf fekk jotaay ba am ku ne waaw kooku day kalam ne waaw te ñoo laaj ki ñu tegal nga xam ne moom bëriwul lu ko ump mu ko waaw wax nga dëgg de bëriwul lu mu ump de waaw waaw lépp borom baraag bi ko waral borom baraag mooy sëñ Tuubaa waaw kilifa yooyu ñuy wax mu diw ak diw mu ne diw wàllu la diw wàllu la diw nag du wàllu yu waaye am na ngërëmul sëñ bi te ngërëmul sëñ bi gën wilaaya kon kon yàlla ñu ko yàlla defal ndax mu ne li tax mu gën wilaaya mu ne wilaaya mooy njëkk yëg loolu mënta faj mooy njëkk yëg loolu mënta waaw ngërëmul sëñ boo ko amee da ngay mën di dogu di def ak dindi yàlla di la ca fekk <laughs> yàlla ni ko yàlla defal hamdu wa shukru liman kuli bi sara luuri dundun sux tinda sar sara luy sana i wardi man bilasixatin musaadili min bani daymanan sara lillahi kulli lada abaari makrumatan lillah يرضى أبار مكرمة قد سألته في أجم من سارا إن يسر إلى سلسلة خسدوا إن الذين إلى سلسلة خسدوا